yow alaykum yow soxna si manela so message démb bi yow lu tax euh, tontu ma gam jëm tok dila xaar ba sonu pour nga tontu buy wo han ah? manela ne la dama dama laa loolu yëgal rek la may toxu suba damay toxu damay toxu la la wax waaw nag mënumaa dekk ci kër go xamne ne amul aération ngay génn ci mbedd bi di féex lu ñu lay san ay xeer kër gi koñ fi ay boy ay doo boy yu doome rawa fi ne boy do doome waaw ma yegg su tour bi sax ma bëgg dooloo yëgal la ko ne damay tuxu ko kii luñu bind ni jàpp bagage jàmbur dag kasse jàpp bu muy cey nga dag mel mel mel mel koy gum ñax <laughs> jàpp bu muy cey nga dag ay way ah, ay xali di gëna soxor way euh euh ke na bi sat kay kay kay jël ma bi ñew ñew mais bay ndeyaa la mo la lu doon ba nga ñew rek lu mo ni bes ko mo tag kami ma kenn xamewu kenn naan bi dafa tàng rek boobu nu maa gis nii yaa ngi takk ay dàll foo jëm nii waaw dama bëggoon dem kalso nii naaj bu tàng bii billaahi ak heure bii jot ñun dañuy sa ah bon billaahi sok la soxla baay waaw ba jàmm temps yëpp maa ngi lay lo kuah. tunnel yi di maa ngi fi ñaa fi jot lekk waaw loolu parce que fait ni koñ dafa am sam ben grand. kan la si. ben grand bas. bas wow, dama bëgg gay ñoo di nante yo, di def ay aligné yo, di ah, ok tak palaagu mbaam yi xam na ki may wax. waaw oui mom mhm. xoolal daf ma yag sonal di ma top quoi né nda bëgg ma may ko ben show. Nafi Sall. waaw waaw. si lu ma def mett na ma. lu ma def mett Nafi Sadio fan nga demoon si fajar gi si guddi gi ba ba heure boobu si fajar gi. waaw man de moom fii damaa jënd woon garab yoo. garab yoo heure mu mën a ah! man de waaru naa de jënd garab jë xanaa guddi gi duñ tëj Nafi Sadio amal jom amal jom yow jigéen nga. léegi jigéen bu tëddee ba guddi dem di seeti góor léegi léegi jamono jooju man jamono ban jamono lan nekk instant bii nii ban jamono léegi góor ñi danoo xiif da ngay ñoom boo demee si ñoom gis ñu lu dul science bi gis ñu lu dul science bi dan lañ gis ñu lu science dan dóor nga dee te góor boo gën jàpp ne koo dox bi kooku moo gën a mën a euh, laaj science góor-góorlu. yo est yak ñu la sax yow. ba mu su doog rek ñi jaar. ah suma suma su won wax dem ci jaar cag ak jiko ci nga def dem lolu jiko ci nga yi ñoy top mir ko yak am ci woon nga ma genn ma ma dugg ci biir kër gi. fi la toog xalé di ma sané xéer yow ya, kon gudd gi suma ma deewoon kon foofu la jëm. te yow lolu day nga ma ci. ah ma ci si doomu ndey yow tamit bëgg rek lay def. waaw soo bés moomu rek ma ngi koy gérer moo bi baaxul ci ko dagg baal kawantaawul la mooy loolu noonu yaa ma gënoon noonu bu ko gisee kay laa xam ne ko kawantaawul la parewul ak seen siñu modd yooyu muy maye jéem ko cee bëgg noonu nag xam nga la moom intéressé bi mu toll même boo ko sax li yor laa soxla quoi parce que temps dama kol ma dem la ko sama loxo waaw ñoo far yow yow daal dama lay seet sama numéro après nga jox ko waaw loolu la léegi man su ma jógee teene après naa jaar sa gaale yow. d'accord ma jox dinaa la xaar. léegi mais naa leen boole fenn ngeen jabi si après ngeen waxtaan. waaw d'accord benn problème. waaw ñoo far. ok. guddi gi moo doon doon fan laa jëm dugg naa te di nga ne ma waaw naka la génn nga. bool bu ma ko dégg bu ma ko gësit de da xanaa léegi yëgoonu xew iPhone 6 24 xaw ma minute la xaw ma ah. dan dan lay yàq dan lay yàq jigéen amul lu dul boppam keroog wax naa na ko fii mën naa fi nekk sa papa sa yaay nekk fi mi ngi bitim réew yaa fi nekk yaa sa yaa rakk bu ndaw léegi boo demee ñu yàq la si mbedd man lan laay wax sa yaay bu ñëwee lan laa koy wax dimbali ma sa bopp ah tam ma yëgal la tamit dañuy tox est-ce mu baax dañuy tuxu bu ñu paree nga préparé bagage dañuy tuxu dem si guddi laa la bëggoon wax fàtte ko ndax xeer yi booy ay doomi laal ma dañ sànni ma xeer ma dox bi damay sax El Hadj Diouf nañ si politique politique fo dugg politique politik. dugg politique parrainage léegi pour lan man ni xaar man ni lay def sax man xawma bama ba voter gëjee ban année la 2006 la gëj voter ñom ñoom ñoo ngi si seen affaire bop man damay dugg sama affaire bop xaar ma politik léegi mo won len politique bi man sonaluma ku fi falu sa bop nga nekkal ana sama big bi ku fi falu sa bop nga nekkal xaara man sama gént dembu yi sax xaar ma xol genton na numéro 10 bi ni te bama ko genté sa dañ ko jox favori favori mom lañu tek ci kanam alaykum alaykum salam seigne bay mako xiar naa la delloo xiar bu baax lepp jam sant yalla naka mu nak sa ah ah wana ko si sëñ lu wank di doxé noor billahi bëgg fu mu charlo rek ah <laughs> moo tax de bëgg fu mu charlo rek ah ma ñëw toogal rek sëñ maxa fekk mi ngi sëñ wax yaa ngi wax lu nag te da ngaa diggee coono sa fas yi laa bëgg nga bàyyi ko. da ngaa fekk may ma ma da ngay fen laa la wax lii ma gis la ngay kose. fan laa kose. ma ne xoolal fan laa kose rek. mais da ngay fen maxa. Ah, daam daam day te offensé nga ma. maxa maxa maxa bàyyi sa fas yi. Ah, daam man bu may lii damay noté. grand bi da da ngaa fas a ba da ngaa xëñ xur nag fas. essai bi day mel ku nekk si gétt. ma xas ku ma xas laa wax. fas yi ma xas. amna li nga xamantene tamit duma la baye nga nga makoy wax de. gi nga xamna boko baye ko bàyyiwul moom leen def. lan simi sama grand bu bi fii léegi ñuus la fi ñuus yu bax man nga ñuus ma man. dum lay ñuus de di nga baye fatte de. man nga ñuus ma. way way way way da nga maa fàtte. ma ne da nga maa laaj wala da nga maa xam nga ma baax na xam nga ma bu bax ñuus la lay def ma ne du affaire bi. ma lan ngay dox ba heure bi ni bay ñëw fi di naan daf may sa tangor gi nga indal musul nek ci yo lan la. faraanoo météo rek. lan ci sun sa dom doom ji finan kër ga laa ko bàyyi. may def na ma lu métti démb yaru sax def na ma lu métti démb. ba ma tëddi xaw fu mu jaar. kër ga génn dem yoonam. yow sa kër boo ko tëjee fu finan mun a aw. loolu ma jaaxal fu mu jaar dem ba ay xaaju guddi. xaaju guddi waaw. pour lan. booy bi yàq nañ ko waay. ya ma xam waaye li ngay wax waay waaye li ngay wax. finaalu mu mel yaru gu mu yaru nga daal yàq nañu ko yàq nañu ko daal moom. waaye sëñ eh eh, eh daame taxawal xool ma xool ma bul jooy waay waaye daame bul jooy booy jooy dama. sëñ naa bul jooy bilaay walaay boo jooy rek mooy jooy loo bul jooy. booy bi il faut ñu yóbbu ko ci ci baar la mu mu def ko dépistage. non dépistage sax déedéet waay waay waay waay waaw taxawal taxawal man nga ne foo koy yóbbu. baar la fii 15 centres fii ñu yóbbu ñu xool ko. da booy mënul dem guddi ba ay xaaju guddi fajar mu ñëw xam nga lan moo tax ma tiit parce ma demee fële ne la sa rosonal ba ma fa demee hmm. xale yi ku mujjee jud au plus la donneur universel ma ko lu war li mu ne ma xale yi dañoo mun a maye deret jaaxal man man man conseil ma ne sax nga yóbbu si baat dem dafa dafa lu ma a dafa lu ma dañ koy yóbbu si waajooju maa ngi dem nag sama xol neexul waaye amul lu ma la bëggoon wax damay tuxu loolu rek moo moo fi lu ma gën a lu ma indi fii loolu bokk na si. mbay man bëgguma ngay ñëw sama kër di ñibbi di jooy. xam nga foo musee jooy damaa jooy. am na am na woo métti rek. foo musee jooy damaa jooy am na rek day benn di si si man bu jigéen mooy sama taaw ma tuddee ko sama yaay. bu defee noonu damay damay jaaxal bàyyi ma dem rek toxu bi nag damay toxu sama kër gu njëkk ga fa laay dellu dégg nga ñu def noonu. doo xaar doo xaar sa rakk bu sama rakk ñëwee nga nuyoon ma ko. noonu ngaa toog de. xam sama xol neexul waaye garaawul. waaw ñoo jël ñu dem si mooy waajooju noonu yow Abu yow ku ma yeb nga da nga gis ci man ñàkk fulla wala dama la wan ñàkk fayda ba tax na nga may convaincre heure bi dama doy affaire bi ñàkk fulla yi. ay jégalu de pour man copine finaa nga sûrement sama copine nga war a doon moo tax ma jàppee ko noonu wala heure bi. te xam nga laa lay xamal na njëkk tey na mujj tey nga may woo di ma doy affaire yu ñàkk fu lay man nag fi naa ay copine la ak du ñu ay copine loolu intéressé la ndax sa yoon nekkul ci yaa ngi may dégg. moo c'est bon maa ngi jégalu bu baax dégg benn problème njëkk tey na ma ko defati. waaw jox la paas nga dem. lớp chiều mắn bahkan bị chăm lấy vật phung có à ơn ni yêu lan love sama paradise bima kau Banyak di sama sunshine Yaula baby yau yai Ki gần chỉ mắt Vula nét ngờ vô mà Vula nét ngờ mà Lu gën def relax yaa ma xam doxantu quoi

mu foog ni paa bi lu nekk la may wax paa bi gàddu sa dugg ci néeg bi nice guddi googu xaw ma lu ma nelaw ndax gàcce puisque ba ma ko gisee dama foogoon damay dóor wala mu def ma dara defu ma dara le lendemain la xëy di ma conseillé ma ruusoo ruus bay bëgg a dee. sa paa nag nante de paa nante la nga bu doon paa ngaa kay si guddi gi dañ lay tàjj bëgg laa solo la kii wax moom paa nante laa bàyyi ba tub ba suba gi le lendemain mu wóor naa nga wax ak yow mais nag yaa gaafee ah def nga erreur mag wax la jigéen amul lul boppam quel monde la gën a bëgg pour dul say parents sa papa boy génn donc nga koy tàgg comprendre nga dañ leen booy génn wala papa mais mhm. même si son papa mon père m'a grandi et tout moi mhm. je n'ai pas regretté le fait d'être avec toi puisque j'étais avec celui que j'aime donc moi je n'ai rien à regretter je comprends Je moment yooyu dama ko passé mu doon lu heure ci man malgré tout mhm. xamal man je gère avec mon père mais man man yow laa mënut a supporter ñu joxante RV du ma mën a assister daal. ma wax la benn affaire. Hmm? avant d'être une copine. Hmm. yow tu rakk la jàppee. sa rakk nag. Hmm. doo bëgg muy jot ak papaam. la moo tax ma lay beneen yoon. waxal ak sa papa rek. waaw oh, garaawul yow woo sa noow. dëgg la ne t'en fais pas man je tiens je tiens beaucoup xamante ne fi ñu war a visiter <laughs> xam nu ñuy def. du dox ndànk ma dugal si coin Thiès. amul benn problème fii jaar bari na de. waaw dañuy fële ne xoolal war rek yow gisagoo dara sax. dama lay dugal xoolal coin Thiès ko toogal. mbaa jàmm. jàmm la du jàmm. sama ta sama boo ko gisee ma dof naaj bu tàng bi jóge fii fii nga xam ne jàmm indi ma fi seen abu moom. démb mu ma convoqué suma chéri bi seen chéri yéen ma ci boole ndax chérante maa ngi woo ma pour ma lam importance la may doyee mun naa ma sama copine moom ma yónni ci yow bamba dugg na fii génn man xaw ma sax kuy bamba ku bamba bamba woo naan day maye abu buñ la day maye waate yow tamit naa xamal leen jàng naqari déret ah lu mu la xañu lu nekk du la ko may yow lan moo tax munoo digéré abu abu yow fan nga teg loolu man su ma xoolee ba xool sa naqari déret gii ni nga tuutee nii xarit deret kese moo la ko teg yow ba nga dee timaa ba tey musuma dégg ku ne la dama laa su ma doon yow nag boo jotee ci bàmba ne la dama laa nga ne ko maa la raw man lan mun laa mënta comprendre ah mooy lan moo tax nga bañ abu yow est ce que bëgg bi nga bëgg finaa dëgg la mën nga bëgg fina ba pare di bañ ku muy àndal nga abu defuma waxuma jotuma salam salaamaaleykum man mako ko bëggul ndax maa di mënta yow bëggoo fi naan batay tey. la baba bamba ku la te abu du ànd ak bon ndax bonul ndax abu bu bonon. finaa du ko xam ba ñun ñu ci jot di ko xam lolo tax may wax leena na nga ànd ak bamba mais yow dangaa naqari deret te na la xamal leen tamit doole ci ba ma la xamee timaa ba tay suma deg ku ne dama laa suma doon yow nak gannaaw dégg nga dama laanu nga ne maa la raw bu ma naan maa la raw day fekk ngay rawanteel koo xam bamba ba ñu ma ko de mais la fait que ne abu yëkkati ko na dama koy may mooy metti sama xol nee nga nag ba nga xamee ba tey mosoo dégg ku ne dama laa ba naan maa ranu kon yow maa yow na mu ca yem ca ku la ci bu pax nga jëm ngaletu guro ba may timaa ba tey mosumaa toog ba dégg ñu ne daal dañ ko koy séddaleen kon ñoo xam nga picc bu lakk si taat day bëgg moroom kon ñoo yem tuutuwaay bi sàcc ma ko dama koo doon ndax naanu may doom ba périmé lekku lekkuma ba samay lex na fëtt ku ma gis dima laaj ndax bañ a dugub laay ndekkee par naturel la maa ngi koy sante suñu borom. mais yow ba nga dalee jànku dafa yàgg boo déggee ma ne la nga ànd ak bamba parce que ba nga dalee jànku moo yàgg. su tuutaay bi ku la diis na xari deret teg na la ko ak yàgg. xamoon naa ma fi jëlee lu neex amee naqar ñëw nga yokk ma ci naqar. ay ay doomu bu wax loolu la tamit lu neex rek laa la bëgg baax lu baax doo ah mu yang tey maa dugg ci waañ bi de. man daal maa jaaxle. sentiment bu jotee ci Bamba ba daw ba rëq muy am muy fuy war na ko muy mel ni fourchette noonu ci xamul daray boppam man de su jotoon ci Bamba laa waxatuñ ko